mu continuer liggéey boobu di la xeexal partout de la défendre partout kon kooku c'est un vrai soldat de la république monsieur le ministre Diène Farba Sarr kon kooku kon APR suñu parti la APR euh, euh, wax dëgg yàlla suñu yëf la kon buñ ci gisee yenn mbir monsieur le président il faut ñu wax euh, yeewaat la waxaat la tuuti li ma bëgg a wax mooy Euh, président a six des élections ba léegi amuñu benn candidat xamuñu fu ñu war a taxaw xamuñ keneen war a àndal xamuñ keneen fañ a war a dem loolu mu doon une grave erreur erreur bi nag mooy bu njëkk mooy nag lu ko indi mooy ñàkk diisoo ñàkk diisoo président loo baax baax baax baax baax Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam moo la gën président loo am am am am am xam-xam-xam président ma président Mouhamed Rasulullah moo la ëpp xam-xam président loo nekk ci yow rek yonent bi sallallahu alayhi wa la ko ëppale xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla daf ko yónni ba pare na ko boole naa la ak Ababacar Ousmane Omar Alioune Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam day comme président ma gisoon nga am lieutenant yi nga xam ne yéen a formé parti bi démb démb ñoom ci sonn ba mu taxaw. ah par respect je pense yow ya, bés bo demee bay tan tan ki nga xam mo moo la war remplacer mo wara a ci bop APR pour continuer liguey bi ni monsieur le président le minimum pour man war nga mën o ken kenn Farba du dara wàññiwul sa nguur dara nga ñu sa kiliftaf dara wàññiwul sa dar ma da ngay xool démb xool tey ñoom nu mu ba parti bi taxaw war nga mën o mustapha Moustapha war ngaa mun a oo Mbaye Ndiaye war ngaa mun a ABC gën na génn na àdduna ndeysaan yal na ko yàlla yërëm ay ñoom euh, dëkk yàlla ñeneen ñeneen. am na ñu fi nekkoon la jeunesse bi fi nekkoon keneen ak keneen nga oo ñu dajaloo toog woon ngeen waxtaan waxtaanu biir te ñëpp boole ci nag boole ci ñu ñëwaat ñu ñëw après ñi nga xam ne nekkoon ay membres fondateurs mais ñu ñëw après parce que tamit la politique c'est de l'addition politique addition la ñu ñëpp ñëpp mais nag nga boole leen waxuma nga sànni tey ñi nga mujjee am de waaye nga ñëpp nga boole leen ñu toog gars lii dem moo am lan moo seen xalaat lii ak lii ak lii ak lii parce que kat yéen a ma jàppale woon démb man ak yéen démb la woon kon tey lan moo seen xalaat kat lañu war a teg wax ñu waxtaan suñu biir ba juboo président su ko defee kenn du frustré président su ko defee kenn du mer président su ko defee ñëpp dañuy dem ak sam xol

comme à six mois des élections Nous bëgg gagner gagné élection Nous, opposition baa ci nous ngay dox Nous ngay ñun sommes ñun war nañ xam lan la lu xew avec beaucoup de respect ñu boole nous aussi par respect boole ji ñi respecté doomu aadama yi mu bañ clan parce que clan ak ak favoritisme ak ak ak ak ak ak ak wax dëgg yàlla lobby lépp lu ñu dal lépp lu ñu yàqale moo ñu ko teg clan rek clan ku ci bokk doo ci bokk ku ci bokk doo falu ku bokk ci groupe boobu doo falu ku bokk ci groupe boobu noonu faale wuñ la ku bokk ci groupe boobu boo doon lu ci biir di mobiliser àdduna lu ci biir Sénégal yow lañ bëgg yaa dàq mobiliser si àdduna yow yow yow li nga mën ci politique kenn mënu ko waaye comme bokkoo ci groupe bi comme bokkoo ci clan bi yow faale wu ni la loolu wax naa yàgg naa ko wax ba ma koy wax dama ne yéen yéen ñii di di def clan yéen ñi def ay lobby yéen président Macky Sall ngeen yàqal parce que nit ki nit ñi ñi mënu leen force ñu bëgg koo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñooñu ñu jëriñu leen dara la base nga gis il y le président Macky Sall président de la république Non la Il y may ko jeune bi may Kenen, keneen du coup tu ci xolu jaamu yàlla Il y a ma euh, monsieur le premier ministre Amadou euh, un homme un gars que je respecte très bien

kenn kenn bu la neexee war ngaa mën laaj réew mi kenn gënu la intellectuel nga te kenn am nga profil waaye nag maa ngi lay conseillé maa ngi lay wàcce ci Seydina Mohamed am na ñoo xam ne Sénégal yi dañ leen vomir am na ñoo xam ne senegal yi bëgguñ leen am na ñoo xam ne senegal yi génn leen seen xol gis naa ne ñu ngi muucu nañ Macky Sall dem nañ ci président Macky Sall jaxase nañ ko ak ay nitam fi ñu toll président Macky Sall ay nitu démbam yëpp fexe nañ ba def seen kala ba ñoo ñëpp kenn xewatul gis nañ ne ñu ngi mu ko muuti nañ foofu noonu président Macky Sall taxaw ne moom jeexal na pare na gis naa ne ñu ngi engagé wu encore du ñëw Sénégal te Sénégalais yi vomir nañ ñooñu Sénégalais bu ko dugg gis ñooñu yaa des teg yoo xam ne Sénégalais ñoom ñoom ñoom teg président Macky Sall lu lu mu yàqu la ci ay nitam. président Macky Sall lu tax eh, diaspora bi ñu mere ko fii fii ñu nekk nii si diaspora bi loo gis ñu mere président Macky Sall rek ñooñu ñoo tax ñooñu bokk nañ si te gis naa ne engagé wu nañ yi ñu ngi lay topp di la dar naan la waa mag eh, Amadou Ba mooy lu baax bi yow leen soxla ma lay waat rek ci Seydina Mouhamad màkk laa jóge barki démb màkk laa jóge barki day màkk maa ngi lay waatal ci Seydina Muhammad bés bu Sénégalais gisee yow nga ànd ak ñooñu bés bu Sénégalais gisee ñooñu tafu sa wet boo gañee élection yi ma xam ne Bommar la moo ko gañee parce que Sénégalais ñu ngi denc seen dànk franc ñu ngi denc seen mer ñu ngi toog stress ñu ngi toog mer toog di xool kon pour gagner élection yi il faut nga am njëriñ ci Sénégal yi pat baña a ñi nga xamne ne dañoo yàqal Sénégal dañoo yak Sénégal yak république yaa ngi dégg def lu neex ci Sénégal yaa ngi dégg yaa ngi dégg te ñi nga taxaw ñi barki sayyidina mohammed ba su président Macky Sall jeexaloon ci réew ba dem nga xam duñ dara duñ dara te donc ñooñu il faut nga éviter Amadouba mon frère il faut éviter le monsieur le premier ministre éviter le ñëpp parce que amuñu bonne personnalité amuñu respectabilité amuñu dignité amuñu dignité ah amuñu charisme dignité, réputation baaxul sénégalais yi vomir nañ réputation su nga ñooñu je pense que euh, da nga nek a nekk ñu tànn la nga continuer à faire bon demee élection de gagner élection parce que nous sommes ñoo tax kon conseiller encore nous nous